mbokk ndax bëgg ngaa bokk ci ñu yàlla bëgg yàlla nañ ko yàlla def yàlla nañu yàlla bëgg waaye pour yàlla bëgg la yaay dox jëm ci lool ndax bëgg nga bokk ci ñu yàlla bëgg ku yàlla bëgg làqal la boppam mën na laa nattu waaye du la toroxal su la yàlla bëggee day woo jibril alayhi salaam ne ko jibril mun a naam waxal waa kaw ne diw sama jaam la bëgg naa ko wax ko waa suuf ñoom it nañ ko bëgg bu jibril waxee loolu waa kaw dañ lay bëgg waa suuf bëgg la ku yàlla bëgg malaaka yàlla yi bëgg la ku yàlla bëgg ñu baax ñu bëgg la yàlla ñu yàlla may mbëggeelu yàlla soo bëggee bokk ci ñi yàlla bëgg juróom benn mbir a ngi nii ay jëf la yoo xam ni yaa cay yóbbu sa bopp soo góorgóorloo ci loolu yàlla mën na laa bëgg bi ci jiitu mooy nga nekk tuubkat fotol yonent bi da daan jéggalu yàlla bis bu nekk téeméeri yoon wala juróom-ñaar fukki yoon inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin yàlla daa bëgg ñuy tuub fu ñu toll ndax nit day bëri bàkkaar bàkkaaru nopp bàkkaaru bët bàkkaaru bakkan bàkkaaru làmmiñ tey bëri na lool tey li gën a bëri ci bàkkaar mooy bàkkaari bët ak bàkkaaru làmmiñ wax lu sa yoon newul dugg ci li sa yoon ñawul loolu boo ci muccee tey tuub yàlla bëgg la nga ni benn ñaareel bi soo bëggee yàlla bëgg la mooy bokkal ci ñuy def njekk ndax wallahu yuhibbul muhsinin yàlla nee na ñiy def njekk dama leen a bëgg lan mooy def njekk nag li ci jiitu mooy jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko jibril laajee mal ihsaan yonent bi def ko ne an taabuda allaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara njekk tigi mooy nga jaamu yàlla te yëg ni yàllaa ngi lay gis loola dana la motiver ba jaamu ga nga def ko ngir yàlla kon góor jigéen nañu def njekk gis nga boo defee njekk sa diggante sa boroom rek dana àgg ci nit ñi su ko defee nga mën koo def ci nit ñi koo mën a dimbale dimbaleel koo mën a jàppale jàppaleel koo mën a waxal lu baax waxal ko ko koo mën a liggéeyal liggéeyal ko ndax dara dara dara ci mbir yi du faar yonent bi nee na njekk yàlla dana ko fay ba ci nga romb dëkk ci mbedd yëkkati ko yàlla dana ci fay jaam bi kon soo bëggee yàlla bëgg la bokkal ci ñuy def njekk beneen bi bokk na ci nga nekk kuy laab-laab lu foo toll foo toll àndal ak laabu xol na nga moytu bokkaale war rujja fahdu jullit day moytu bakkaar wala tam nun tastakfir jullit day fexe di laab fu mu toll bi xasabi ni ngay laabee noonu la la seytaane di sore moo tax nitu yàlla yi baax fu ñu duggee toilette génn jàpp fu ñu jàppoo julli ñaari rakka lan moo tax ndax kat inna alxasanaati yudhibna sayyi'aat yu baax yi yu rafet yi day yóbbu yu bon yi kon wallahu yuhibbul mutahhirin yàlla ne ne bëgg na way laab-laab yu beneen bi soo bëggee yàlla bëgg la nga maandu nag te ko nga maandu jullit day maandu ci lu yoonam newul Lakil, lak mwen man, seme gale yu bwene chabu mwen man. Kou yon moun, mando dal mwen, pou galti fayon, baye kenen siyon. Son e bokale yon e mandoun. Son e bidal yon e mandoun. Mando dal mwen bayi moudou mounen ki ti lukonek. Balsamba mounen ki ti lukonek. Yefot nal yak jenan men nou. Ente al lakale, di moun apen, denkotak, mek ale pou bakla. bi mu ne yàllaa ma yónnee ñu ne ko kunta fii naa marjuwan yow ku ñu yaakaaroon nga mais booy da nga ñëwoon recevoir quoi da nga soo bëggee nekk ku baax fi nit ñi bul waaraate de bul waaree bul wax boo dee yàlla nee na ñépp ŋaang la du duggul yoonam nekk daa kontu nit ñi daa nangam daa nangam boo góorgóorloo nag di waaraate ci man haju salafu saalih tawhid bu saf sàpp bu ko borom xam-xam yi bàyyee fitnaam tawhid la yàlla jox yonent yi de wallahi yéen imam yi ma ngi len di deg di dénk sama bopp ah islam et la jeunesse baax na de mais jeunesse mënta am personnalité ludul mu moytu bokal jeunesse mënta am personnalité ludul mu am tawhid tawhid na bari na tafaro na fess ci jàkka na dem ci bërëb yi duaat yi nañu ñëw ci tawhid ndax yàlla ci loolu la yónni yonent yi yaa qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru yàlla li mu yónni yonent yi mooy ne nit ñi am iman fa man yakfur bi taaxuut wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa ku weddi seytaane ak ñamu àndal ku weddi iblis ak ñamu àndal jàpp nga ci buum bu dëgër ba kon balaa ngaa gëm da ngay weddi munoo gëm doog a weddi soo gëmee doog ko weddi dana am loo bàyyi mbir mi doog a dëgër bopp mel ni Umar ibn Xattaab weddi bale ba mu set doog a indi ngëm parce que ngëm du ko fu tilim nanguwu ko kon nag fexeel nga wax nit ñi tawhid usulu salaasa na jolli kitaabu tawhid na tasaaroo wax leen hadis yi yonent bi wax dàqu leen koo daawa gënu leen koo xam kuy xam ci ñun moo la gën a xam te ci loolu la doon wootee kon boo bëggee nag bëgg a ñëw ni yonent biir li mu doon wax vraiment nañu ko bàyyi jéem a wax ci li xew ci jamono bi islam technologie vraiment islam jeunesse islam sport islam football islam basket. soo ko demee rek ñu ne non ngan di oustaz rek non oustaz macha allah oustaz bi dafa comprendre situation parce que waxoo leen leen métti mais boo nee bidaa laal seeni sëriñ ak seeni kii ah boo ko defee rek indi problème te defee nag coow li jóg. bu dee gars yi commencé yenn ustaas yi bëgg a compte nag laata subbu lazina zalamu fa yasubbu llaha xayra xaw ma nu mu koy wax ngeen baal ma ci ay balaw wala laata subbu lazina waaw kay laata subbu lazina yaduna min duni la fa yasubbu llaha adwan bi xayri ilm ñu commencé di lay indil ay aaya wax ji dafa dëgër dafa tiit dafa nangam dafa nangam mbokk yi boo bëggee bokk ci ñu yàlla bëgg il faut nga bokk ci almuttaquun nga bokk ci ñu ragal yàlla borom bi nee na inna allaha yuhibbul muttaqin il faut nga ragal yàlla bokk na ci boo bëgg yàlla bëgg la ngay wakkiilu ci moom di wéeru ci moom di dellu ci moom bàyyi ñëpp jëm ci yàlla borom bi nee na inna allaha yuhibbul mutawakkilin ba ca mujj nag borom bi nee na ngay xeex ci yoonam waaw inna allaha yuhibbu yu yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus ñii xeex ci yoonu yàlla mooy ñi taxaw ci sunna tey daawa xeex la ci yoonu yàlla insha allah yàlla nañ ko yàlla defal yàlla may ñu dëgër mbokk yi ñu xam ni sunna insha allah nit ñi nañ ci jéem lu ne waaye ku jéem sonn fa mu nekkoon la nekk changé gul ba léegi fa mu toogoon la toog ku ñëw fekk si ko ma nga fa ku dem ba ko ma nga fa